mooy lan. non damay laaj mooy lan. guddi ah, kii nañ ci bàyyi wax ji rek non jox ko moom day wax rek jox ko micro bi rek moom. kañ la léegi da nga naan wax rek day wax rek. non oh, parce que yàlla ba bëgg a dee moom sànq. moom door am combat bu amee bës ni ak combat bu amee coow mu door am adversaire daan na am nag ay adversaire non déggoo ma dé non déglu ma moom déggoo moom. du ma ko taayee di wax. nit loo bañ bañ bañ bañ wala nit loo bañ bañ nangul ko li mu doon quoi moom jàmbaar la champion la. mais day door a am combat bu amee nuñ coow te mu ngi door am adversaire moom wax na ko. man maa cooli Yankaw moom moo la gën a xam lool man Yankaw maanaam Yankaw dawul sama yaram bu dee wàllu bëre quoi wàllu bëre quoi wàllu sport dawul sama yaram mais après laa ma bu jeexee coow mais moom moo la gën a xam moom day tëdd moom li muy bañ a dégg ay tëdd jeex na moom moom day tëdd moom non moom day tëdd non moom day tëdd moom incha allah bu si yàlla àndee wax naa ko sànq nee naa ko yow da ngaa ndeyalee sa bopp suuf wax naa ko nee naa ko yow da ngaa ndeyalee sa bopp suuf mais loolu la bañ a dégg cooju man ma wax moom mënewuma a wax parce que na moom Ronaldinho di ñëw nag nawloo woo yankaaw contraire moom moo ma nawloowu au man su ma doon beneen mbër bu dul yankaaw sax damay respecté amaana nag tam wax moo du bari mais heure jëf jote damay jëf yaa ngi man ba ma dalee am combat ba tey maa ngi door wax parce que damaa daje mbër mu mën a wax mbër mu wëri wax mais sama wax moom bëriwul wax ko dëgg yàlla moom xam na loolu. non kii moom mënoo bëre ak wax ndax la waxkat la te man nag man du ma waxkat jëfkat laa. xam nga a muy lan yan bor. a fay xam nga loolu. bopp ak ak bi. seen tapet bi sama doomu nday sama doomu nday xam nga ko bu baax non xam nga ko kañ non xam nga ko kañ bi man ma jaar ci turam non bi rek laa koy parce que moom sama waay la quoi moo tax moom sama waay sama frère la quoi sama grand la dañ koy jox ma ko respecté moo tax quoi mënu ma wax si moom lu bari. booy booy gone ak Ndakaaru gi gone Ndakaaru gi la kan moo ma daan kan tapet bi yàlla xam na ne daanu ma yàlla mi ma tiim xam na ne daanu ma barki Seexul Tijaan loolu yàgg na si làmba loolu yàgg na si làmba barki alxuraan loolu moom yàgg na si làmba ko billahi wallahi soo déggee ay kàddoom yàgg waaye kàddu barki démb waaw nest pas arbitre bi daa soufflé xaw ma fan yee passé arbitre daa soufflé daa soufflé ne fin fin jël la am après soufflé bi mu joxe victoire loolu fa mu am loolu fa mu am ñun ñëpp teg nañ ci bët waaw nañ wax si loolu yang dañu waxaat onze billah rek bisimilah ina wali yàlla jërëjëfe borom Tuubaa borom Tuubaa ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si bi santaar suñu ñaari bu baax a sant suñu sëriñ Cheikh Basirou Mbacke di ko wax balay su dundal yàgg fi loolu te wér di ñaanal tamit suñu papa père Gaston di ko jaale monde lamb di ko jaale ay mbokam di mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee njaboot gi mu fi bàyyi yëpp suñu bu baax a ko jaawale benn date la képp ku yoo sa biyee téeko ba la 20 mai lamb jàmbaari lamb amateur kii dana coow li daa bëri yanka wa lekk jasaaka bi faaw coow li bëri maa la may coow li da jàmbaar yanka su wàcc see rek coow li day bëri ni mu coowee li coow li bëree noonu la bëree bi bëree am nga bés de jàmbaar barke alxuraan tëdd jeex na ma fi yaa bu dëgër bi dañu ma ma fi ma dañu maa yónni yaakaar ma di ñëw tëdd jeex na de te du ma ko ñuy defeere lu leer laa lay tegal ngay bëreeg mbër ma nga xamante ne ci bëre ay qualité am kenn mënu ko natt man dama dama am leen loo xam ne mu ko wax ma bëre làmb topp coow li damay bëre koo xam ne la bërekat la loolu man xam naa ko mais mën a bëre laa la kenn mën a bëre sama yëf la kuñ koy jiñ ko su ma tasee ak ñoom su ma tasee yow di nga xam ne mën a bëre sama yëf la chaque jour ma wax ko dafa maa metti combat bi dafa taxaw ñu ne top 5 am na gan damay paree sama bopp ci top 5 mën a bëre sama yëf la duñ ko jiñ kenn sama wet loolu bu ñu ko waxee sama xol day jóg ndax maa moom mën a bëre fuuf ñi koy yëpp ñëpp ñi koy yëpp ñëpp ba si ay mbokkam ma leer na dañ naan kaan bul bëre man loolu leer na ma loolu leer na ma ba ci ñi bokkal écrit loolu lañ koy sant bul bëre moom bu xeexee tamit dafa fekk xeex daaxumaa xeex léeg-léeg ñi may ñi may yeb dañaa ma ma dañaa ma bul bëreeg moom ndax dañ koy nangul mën a bëreem comme ñu may yab mën nañu am na loo xam dañ koy umbale ci man bu baax ñëw dëggal sama bu ma sib mën a bëre ba jël naa ko maa xam dañoo bëgg a jël mais nekk ci yow yaa ko gën a xam sa bopp ku nekk luñ la waaye waaye xam yaa gën a xam sa waaye di ñëw suñu maa bul bëreeg da ngay bëre man damay ñëw wane la maa la ko dàq fuuf maa la dàq bëre non dàq maa bëre moom waaw la jour dina leer la junni su ma bëree jox la doo ma damay bëre jox la mu jeex damay bëre jox la rek mu ah, jeex su ma bëree doo bëre d'accord naa yow la benn jàpp non dañ ne moom a bëre ba pare jël boppam ndeyale ko jël wërsëg la jël wërsëg yi dafa mbas may daanu ku def 15 combats 10 victoires 4 maa ma jël wërsëg la wërsëg sama grand di caaru ba bambara 50 50 bi non nga moom jël li nga war a daan yàlla ñëw nga war a daal loolu da nga koy yàlla man ma sant ko yàlla mais man du ma la kalaat wala du ma la dingat wala du ma la xalab si loo xam ne ni tey bëgguma ko ma ko def mais di nga daan mbër xam ne yow sa jàmbaar ak sa mën-mën moo tax nga daan mbër mi nga daan mbër xam ne kii yow yàlla moo ñëw jël wërsëg ni man damay xam nga na lañ koy waxatee a bëri ngay mbasaade de <laughs> ma mbas rek yow moo jël réew mi sama nijaay di ko nuyu de passage di ko ñaanal yàlla li ñu koy sënam na instant yi da ngay liggéey fay ko toog muy dox laa mu ji mbas mu daanoo mu fi da ngay bëri moo tax may mbasaate moo tax may mbasaate dama lay laaj lan moo tax may mbasaate yow mbasaate taxaw dëgër see dëgër kenn ëppoo si kenn doole man nag kenn doole see bëri kenn gënoo see dëgër kenn man dàq bëri man dàq mën a bëri bu ko jiiñ bu ma ko jiiñ keneen maa dàq bëri ñëpp ñëpp non yow maa dàq bëri moom maa dàq bëri moom ah, moom maa dàq bëri moom yaa ma dàq wax man yaa Ah, yaa ma dàqaw moom nangu naa ko moom bokk dëgg yàlla mais bu dee wàllu bëre moom wàllu jëf am na joxal njaay jóob moom ah, ah nee na nee na bu bëree jox la doog a wecc dégg ñu ne le magicien dégg ñu brésilien maa ngi nii toog maa ngi nii toog nekk ci borom Philippe Falab maa de chambre passe décisif laa koy defal passe décisif boo xam ne kenn xam fu muy jógee waaye li laa lay defal bal bi yow dama indi dama lay indi bal bi base dix-huit laa lay defal man dama lay passe dix-huit waaw moom def passe dix-huit xam nga passe dix-huit mooy lan passe dix-huit passe boo xam ne doo def appel doo def ah, ba suuf incha allah ah gisoo ko passe doom signal de <laughs> eh. danga ay passe diviseur ay profondeur ay diagonal ay profondeur yooyu danga koy gis damay ne passe dix-huit xam ne amul signe amul dara intervalle bi laay bëre xew xam nga xamoo nag intervalle combat Eh, intervalle laa bëree yow waaw amateur dañu ko soxla dafa taxaw ñu ne top 5 day gan di ñëw bi dama taxaw bëgg dama bëgg a bëre nga ma dafa am ay bëre kër yoo xam ne dama leen ubbil mu ñëw dama bëgg eh, bëre nga wecci ma bu soobee yàlla suñu borom yàlla na la yàlla defal jàmm defal ma jàmm te defal ko yeneen adversaire kenn bañ ci am benn gàllankoor parce que yàlla moom moo yor lépp ah. mooy xool li ko neex mu dogal ko mais ñaanuñu yàlla kenn am benn dog-dog te yàlla nañu si yàlla musal balaa la vingt yàlla yóbbuñu si jàmm salaam parce que promoteur dafa am yaakaar ba tëggal ñu mm-hmm. kon nañ fexe wane suñu njàmbaar ba pare en même temps ñu wàllu mobilisation bi ñu bañ ko gàccal parce que daf ñu tëggal mais dama ne la yàlla nañu yàlla defal jàmm ak tal ak mën ak fekke ci kàttanu yàlla jegoonaa lay bi réxew man damay damaa bëri dama ne la bu suba su ma bëree yore delloo ma bëre mu jeex bëgguma mu bëre mu jeex barke alxuraan ma bëre jox ko bëre delloo ma ba ah. du ma delloo ah, ay ko wax jagonaal mu xam luy jagonaal xamay jagonaal bi jóge poto corner bi ñëw ci poto corner bi ah, amul profondeur dafa gàtt na ne passe boo ma boo ma jagonaal lu doy waar <laughs> jagonaal bi diagonal bi laay bëree kër gi fees. barke alxuraan pang xool eh kër gi fees. waa di wax gars yi bi la 20 mai la bu leen ko jaawale lii mooy lamb amateur yi barke alxuraan gars ku weesu billet téye ba la 20 ku ko dagg feneen yaa ngi yàq lamb yi da ngay gis bëre gis xeex gis ambiance jasaaka le retour de jasaaka waa di waat képp kuy béggee Yankaw Senior di wax ne lamb ji nii promoteur bi dañoo tëggal am ci ñun yaakaar di wax ne lamb ji lënd la nag feet la fëree bu ko jaawale signature contrat bi la 7 mai la 21h di ci woo képp kuy bëggee Yankaw Junior waa di woo ñuy jàppale tamit di wax ne lambu ji nii yéen lañ ci yaakaar ngeen jëlal tutaanki bi ñu dem taaral kaw rek suuf gi la ku ci mel ne grand Baye Fall borom asalem ñi a baax Fallou Fall Touba woo ci lambu ji Maysa borom Brésil ñi ngi woo ci lambu bu baax a baax sans interdit ñi ngi lay woo di woo ma fi aa yokkal ma jaala bi ñoon ñooy samay Malick Gakou gis naa niñ taxawee ci lambu ji bu baax a baax waa asalem waa Petersen ah waa rond-point Liberté 6 ah waa Thiaroye képp ku naan yokkal ma jaala fu mu mën nekk maa lay woo ci lamb ji di woo ku ci mel ni euh, tafa kii nii Essar bu Tafatin maa lay woo ci lamb ji bu baax a baax di woo ku ci mel ni Abdou Fall borom marché borom marché fii nii biir Dakar maa ngi koy woo bu baax a baax gannaaw Abdou Fall day jàpp ci lamb ji bu baax a baax ku ci mel ne Aliou sama nijaay borom marché caaro yi yow gis na ni ngay taxawee ci làmb ji mafia café gi gis nañ ni ñu taxawee ci làmb ji bu baax a baax mafia amul yaa xalaate bi ah daf yangaw champion gis nañ ni ngeen taxawee ci làmb ji mafia bu dëgër taxawaay bu baax a baax baax mafia tout temps bi nag waa Mbombay di woos di lancer appel suñu maire dëkk mu Edouard commune de Ndondol di ko lancer tout temps gi dañoo war a ñëw estade te tout temps ñoo dajale ay téeméer ay fukk di ko dajale di ma dajaleel ay élèves yu jàng dañoo bëgg ngi li laay war a suli ñu kaar bi tout temps ñëw commune de Ndondol bi yëpp dañoo bëgg a ñëw waa Mbombay juróom-ñaari penc yëpp maa leen di waat ci bu baax di la 20 mai tamit di a yëngu waa waa Jilor maa leen woo ci làmb ji waa Jilor ah ma waa atelier Tipo ñoom Petit ah ñoom Isa waa ñoom yi bu baax a baax ñoom rek i ñëwaa commune de Fimela bi yëpp bàyyiwuma kenn di leen woo ci làmb ji bu baax a baax waa Touba sama waa dëkk waa ndiri Serigne Fallou waa gis na billaahi ñi ngi di di di jàpp ci làmb ji ndax dañoo mën a dañoo jóg pour jàppale seen doom ku ci ni président bi Fallou Baye Galas ñoom Abdou maa leen woo ci lamb yi gis nañ taxawaay bu baax a baax di ñaanal suñu suñu yaakaar suñu lépp Baye Karim Mbacke Fallou di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam di saakowaat ci ñun balay ñu bu a baax a baax njaboot Serigne Fallou yëpp di woo waa fans club doomu Mbacke bi yëpp waa Taba Caabi bi sama gars yi staff nag gis nañ taxawaay bi quoi staff Yankaw bi ku ci ni Baye Abdou Seelu bu Yankaaw ñagas de Cheikh Maam Saliou ah Yaroo Baax ah Mout Sarr saa xombal Aliou Sall Yankaaw Sendel maa leen di bëgg sama course yi tamit gis nañ taxawaay bi quoi bi laa mi taxee bàyyi gay meilleur course musculation bàyyi maa lay siyaare bu baax gis nañ taxawaay bu baax baax sama course Mbay Fay maa ngi koy siyaar baax course boxe yi tamit gis nañ ñi taxawee ci sama mbokki mbëri tamit gis nañ combat bi nañ ko fonke quoi ku ci mel ñoom jë jaamu ñëpp maa leen ñaan suñu borom tamit ñu am combat tamit ndax ay xale lañ ñu waa promoteur tamit ñu geesuwaat waaye ko li Doudou a am bu Saalum tamit dafa war a ñëwaat jeex jaamu ah sa wala laa war a suñu geesu gox boobu noonu di woo waa NCB bi yëpp na sama grand booy caaru booy bambara lamb sa lamb la noiro lamb sa lamb la képp kuy takk ngemb rek te nekk bawal bawal tamit maa lay woo ci lamb ji nii di wax ne lamb ji seen ku bawal bawal nag am combat maa lay ñaan suñu defal ndam Mor Kanka ñi ñaanal dimanche yàlla na ko suñu borom sutural defal ko di waat ñëpp di wax rendez-vous le 20 mai incha allah di ñëw le 20 yottiima de le 20 Baye Fall Maodo Ari heɓee ndaar booy eh <laughs> ñi nga woo ñëpp yàlla lañ la jàppale barki borom Tiwaawan ñi nga woo ñëpp yàlla lañ la jàppale yàlla bu la kenn rejeté yàlla bu la ngir yàlla képp ku yankaa woo maa ngi lay sàkku ngir yàlla nga jàppale ko nga teg ko loxo parce que wax na dëgg quoi ñun ay jeunesse lañ te amuñu lu làmba bu weesoo làmb ji après bu làmb jeexee ñun ñëpp ñoo dañu nekkaat si jàmm quoi mooy loolu quoi mais dañuy santaat yàlla rek di ñaana samay ñaari waajur yàlla na yërëm leen te jégg leen xare leen ajana te ñaanal suñu papa Gaston mi nga xam ne yàlla dégool na mu wàññee ko barki démb yàlla yërëm ko jéggal ko xare ko ajana te jaale ko famille yëpp waaw dañuy woowaat rek parce que ñun lii lañ am après combat ak avant combat kon dañuy profité di woo ñi nga xam ne ñoo ñu jàpp tey ku mel ni tey exemple ku mel ni Cheikh Modou Gueye sama copain la doañee bu mag bi maa ngi koy siyaar bu baax parce que démb si guddi rek gisante nañ mu am na mu defaax man te nee na pareegul démb si guddi rek billaay walaay mbay njaay am di ba xam boo paree dama lay yóbbu si mbay njaay am di mu dindi la sa bëñ bi bëñ bi heure boo paree boo ñëwee mu yóbbu la ma boole la moom mu dindi la am di borom dante bu mag bi maa ngi koy woo bu baax maa ngi koy sant bu baax moom tamit saa su ne da si jàpp albendooy suñu papa maire bi maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si na la ñuy waxate pap konaate maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si seegondooy Euh, waa Thiawlène gépp Lamine Diop maa ngi woo sama gars yëpp di woo ma fi at daga sa yaram sànni bi bawu ma kenn affaire bi du woote bi du léegi de la 20 incha